waxtaan bi daal. Hmm. Eh, defaloo ma meew. waaw meew maa ngi sama naa la may meew si ngoom. waaw luy naa jënd kër na bëf. waaw jënd mburu. waaw la jox meew mooy def sa sa kaas yàlla dëgg la bëgg. ah yàlla daa boo amee jabar da koy jëndal meew. déedéet ah, la moo yàlla dëgg la. waaw damaa xam ne. yàlla moo ne njaboot boo gis sàmm la. Hmm. te bu yomal xiyaamee. kenn ku ci nekk dana la laaj nan nga doon sàmmee sa njaboot. demal pet force ma pellet yóbbu ma police nga ne sama nijaay ma jox ma mais man ko jox ma na kër na boobu laa am mburu suukar mun a lekk lekk munul lekk nga bàyyi eh, dama koy jël noonu sec ma lekkee ko noonu après sama bóoli bi fàtt mun ngaa bañ a nekk bàyyi noonu xaaraañ du force ndékki bi du force di ndékki da ngay am envie ndékki ndékki amul envie ndékki nga bàyyi noonu oh, lii Ndijaay yow Ndijaay ma laaj la benn affaire mm. Ndijaay doo seet ci yàlla ak yonent bi mm. yow nga nga baal su man bu fi daan teg ay croissant uh-huh. ay saucisson bu soo ko fi daan teg uh-huh. fromage gruyère bii ñun buñ ko tàmmee ci ndékki buso la uh-huh. léegi yow nga ne doo baal buso jàppal nga buso een buso téye loxoom ci kër gi ndékki li neexatul mamee asto ku ne léegi ku ne yaa ngi ci sa bopp sa bopp nga tal bopp sa bopp léegi yow ngay def ci sa bopp yow boo ndékkee pare nga dugg nga sa néeg mbaa nga añ dugg sa néeg sa yoon nekkatul ci lenn yaay loolu pour lan waaw léegi yow bu ma déggee da nga ne yow yooyu yëpp bu fi doon indi. waaw moom moo fi ñëw indi fi ëmb. trip dip ëmb na. waaw ñu ko doon financé formation ngir yeer yeeg jus yooyu ngay wax. ñoom ñoo ko financé ëmb te xamu leen. s'il vous plaît waaye bàyyi ma waaye ma ndekki tranquillement. nga ma bàyyi ma nekk. waaw su feer pere dimbali ma rek nga jàngoo ak Fatou Ndao. revient encore pas mu nga ci ñoom wax bi mu war a baax dégg nga boo respecté wu ñu nga ko fekk fii nga respecté sa pour vous dire damay dem porter ji plainte. Ndiaye man xanaa gisoo ne kii yow lay waxal. ndijaay yow nit taxaw di wax a ji yow nga mel ni miir lay waxal ndijaay yow àdduna du neex wala mu naqari ba nga taxaw bañ ne kii sa doom la kii sa deret la ndijaay njuumte du wees ndijaay ndégam ndégam mag yi ñooy juum sàkkantuma la xale ndijaay kii li ko dal mën naa dal ku ne te kii elle a besoin de ta bénédiction elle a besoin de ton aide elle aussi besoin de tes conseils nga si ngom kii def maa def gàcc teg na ma gàcc si dëkk ba ñëpp xam ko mënatumaa génn guddi mënatumaa génn bëccëg ndax kersa fii laa romb booy koñ bi ñu naan ma xool leen paabee moom la doom ji ëmb kenn teguma ko nag ak ak à cause de lui teg na ma gàcc boo xam ne sama ñi njab sama famille tax nañu yem ma fu waaye nekk la may wooyee téléphone naa ma sa doom ji nangam dégg naa sa doom ji nangam si ngom ngir yàlla s'il vous plaît maa la ko ñaan ngir yàlla war suuli lu sama xol di naqar doy na sëgg s'il vous plaît ma wax busu s'il vous plaît on noonu la jël s'il vous plaît bul ma dimbali ma rek ngir yàlla busu dinaa la ko may dootuma la wax wax busu waaye dinaa la wax ñaari baat ndijaay nit booy xool ci moom lu tilim tilim tilim ba rek ngay gis doo mës a gis lu set ci moom ndijaay buso mi bonul waxuma la sa digganteeg sa moroom waaye sa digganteeg sa borom sax chaque jour bés bu yàlla sàkk nit dina def ci li mu yëg ak li mu yëgul benn erreur bu ndaw mu doon bàkkaar bu jéggaloo sunu borom sunu borom jéggal ko nit dangay ngay jéggale tey jéllale rawatina jullit yow kañ ngay nangu ne kii xale la te li ko dal mën naa dal ku nekk ni mu juumee man mën naa juumee noonu nga baal ma ci kàdd bi yow mii di mag sax mën ngaa juum man mën naa gën ëmbal si mbedd bi. déedéet du loolu waaye ndijaay mën ngaa juum yàlla rek a dul juum ndijaay seetal ci yàlla nga baal kii te yàlla tax. Bousso man maa la ko ñaan entre cousin ak cousine sa affaire u plainte boobu teg ko ci suuf c'est pas ça la solution nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee da koo gën. mbaam bu la wéexee nga wéexu ko bu yàggee ngeen bokk way te wax dëgg yàlla Bousso yow doo koy màtt di ëf balaa ngay def nag loo xamante ne rëccu mën na la cee fekk ëllëg réfléchiral bu baax man je suis là pour ton cousin et je suis là te protéger bu la ñëpp bàyyee man duma la bàyyi tu sais bel bien que le fautif fait partie de la famille le linge sale se famille man considéré duma sama bopp comme ku bokk ci famille bi ndaxte sama lay saan mu ngi ci réseaux sociaux bi ngeen wéy répondre de toute façon nag man li amoon pour naka mooy maa ngi nii di jóg di dem brigade de la cybercriminalité te nag papa képp ku def lii di nga dem wuyutu yoon. donc moo xam dégg nga waxam ju ñaaw ji wax mu ne ñun ñoo daal di koy jël génne ko si famille bi moo tax boole tur boppam famille bi. te yow xam nga ne kenn génnewu ko moom moo jëkk a def lu bon moom moo njëkk am woy boo xam ne famille bi kenn musta am woy bu mel noonu ndax moom moo tax waalo bu nu ëmbal ko si àll mu ñëw ne dégg biram léegi nag balaa nga fay jógee di nga ma wax lan mooy cyberde infidélité yow. papa du loolu de cybercriminalité mooy bépp infraction bi nga xam ni technologie de l'information ak de la communication lañ ko defee maanaam lépp lu bon li nga xam ne dañ ko dugal ci réseaux sociaux bi te du yoon. comme tey sama cas sama vie privée ñu jël ko dugal ko ci réseaux sociaux bi te nekkul lu yoon ñoom loolu lañ fi nekkal. Ah, ok su ma la déggee mooy yow ñooñu waa cyber boobu nga bëgg a jëm jox sa doom ji ñu surveiller la ka moo la ëmbal ak ku ëmbal tamit fu mu dëkk ak ndey ak mag baayam ay jugal topp sama baaraam. naan ay waa cyber tibet kay côté loolu yow mënoon ngaa surveiller sa bopp te kenn du la surveiller saa gën a tasaare sa bopp si internet bi naan damay ut ko what

tuuti ñu def tànk. waaw baax na en tout cas daal def naa sama liggéey sama xaalis daal lay laaj. defal tànk yow nee nee naa la nga bàyyi di ma woo man dinaa la woo. maa ngi suñu kër di dof doflu sama kaw avec tous les risques que ngay dof doflu te dafa la woo. dinaa la jox sa xaalis. dis que tu veux. tu fais les triants avec moi mais je vais te montrer que suis plus pègre que toi. sa kër laa ñëw tas kaas yëpp. dafoo sax.

fas jom dégg moo kaala pour bu sore jomb naa lu ma bàyyi bu suuf seet ma yëg ko naan jomb ko mu xam ne moom du ci dara man la moo raw omelette fi bu toll nii foo ko fekkee mi ngi neewee kerees mami doo nga ma des te yow xam nga ni mami su ma dina dinaa ko jàmb rek dinaa ko jàmb mokkali tas ba mu tasaaroo. bravo eh, ak yaa bokk da nga koo xew. waaw ma yaakaaroon naa da nga génn sa àll ba dégg nit yàq diggante buso ak mami nga simmi ku xeex ak ñoom. Asou man naka laa mën a dégg toogee fii di di la déglu kaddu gu ñaaw gi nga koy yëkkati naa ko kër gi naa ko toj ndax yow noonu nga xam na ko waaye nag. lii nag bett ma si yow parce que yow jël nga sa bopp def ko ngay fenkat di yàq der nit ñi naan na ngay tas kër gi heureusement waaye olof wax na dëgg naka di saa yu ndox la kay safaraak wàll jikko naka jekk ma ne lii di jukkee buso danga ko xaw wàll waaye nag dinaa si jël sama matuwaay bu mu mat sëkk comme yow dangaa jël fen rek ne doo ko bàyyi yow kay yaay Samba Saña yow yaa ay eh, bul ma ne bukk sa bët seytaane yi de foo gis seytaane day xonk astu yaa ngi fen ci whatsapp bi astu yaa ngi fen ci facebook bi astu yaa ngi fen ci youtube bi astu yaa ngi fen ci téetéeri astu tiktok sax yaa ngi fay fenn xanaa nag bu duggee si armée yi commencé feneen ne di nga bàyyi kalkun loolu yàlla te jukkee fenkat mooy lu suñu borom gën a sib si àdduna bi li yàlla suñu borom wax na si boppam ginnaaw bokkaale ma fen mooy bàkkaar bu gën a mag yow ngay fen gratuit comme nag yow fenkat nga da si kër gi dootoo togg fenkat du fi togg ñuy lekk-lekki doon ay fen di fen rek gratuitement xaaral si nga si nga eh kaay fi yow kaay si nga yow lan la ah. kër gi di toj ma may ni ku nekkul ci kër gi si ngom lu waykat diw doo ko doon wax kay man maa ngi doog a gëm ci lan muy nit mu nalaa jege lool fekk sori na la dëgg la bu jegee doon tax a doon xarit ndox du togg jël lu xew kër gi lu may toj yëpp ñu ana seytaane bu dugg suñu kër gi fan la jógee naka di asuma seytaane asuma waaye si ngoom man ba kër gi di toj lépp ouvaati c'est lui ah, ana asu eh, eh, eh, mu ngi si la courgé voilà nii ki ñu. kii famille bi. waru ci woon a bokk. am mos chaque jour ma ah. am mos yàqu gaay. indi indi indi. soobee yàlla añ bi laa yóbbu si biti. Ah. jox ko yeneen ñu lekk lan lan. Ah. añ mi yow mi nga miskit ak mère da nga koy utiliser. ñun tàmmuñu ko. léegi xam nga qu'est-ce que lu olof lu olof naan bu golo la gën a xam kër gu am xaj. waaw yéen xam mooy communion. waaw parce que j'ai peur. dinaa fexe indi ko ci kër gi mu nekk kër gi la a la kenn kër gi bu nekk añ bi dinañ ko lekk. te mu woy